ne lu actualité bi tey mooy phénomène inondation yi nga xamante ne c'est un phénomène récurrent maanaam luy ñëw la di ñëwaat luy ñëw la di ñëwaat chaque année rek ñu ne nañu def plan ORSEC président jàppale na et cetera may rappeler ne amoon na plan décennal boo xamante ne 750 milliards def nañ ko si war nañ ko si def parce que c'est sur 10 ans 2012 2022 ñoom ñu ngi déclaré un taux de 66 virgule 51 pour cent d'exécution maanaam nee nañ yaa yooyu yaay mbënd nii dugal nañ si 511 milliards pour mu régler wu 511 milliards boo xamante ne année bu ñëw rek daanaka nga fàtte année bu bu bu fi jaaroon ndax ay souffrance loolu nag muy phénomène bu inadmissible inadmissible tey population yi nekk ci ndox mi waxuma la rek ñàkk nañu fu ñu tëdd waxuma la rek ñàkk nañu fu ñu suturloo waaye li ñu war a dundee sax gis nañ ne prix yi dafa yokk les prix de denrées de première nécessité nga xamante ne ne njaboot yi si la ñuy suturoo nga sombi sa sombi naan nga defar loo xamante ne ne kenn du ko xam nga naan lu ngay sombee sax muy ceeb ba day yokk waa situation boobu nag su amee si réew dafa am exigence bu ñu war a def pour le gouvernement mu régler ko le plus rapidement possible parce que nag sénégalais yi du ñu jasit du ñu mbott du ñu ay jën bañ leen di bàyyi si biir ay ndox loolu war na doon taxawaay boo xamante ne war nañ ko taxaw très rapidement may fàttali ne le 11 septembre deux mille vingt bi passé assemblée nationale def nañu déclaration dañuy def commission boo xamante ne euh, dafa jëm si saytu loolu mission d'information la sax pour être précis mission d'information soo fàttalikoo waxoon naa si lu bëri mission d'information boo xamante ne bañ koy bind rek tagg nañu gouvernement bi tagg ci douze paragraphes pour wax taxawaay bu mu am ci mbënd mi ak sax président lu mu déclenché plan Orsec ak tamit lu mu jël dix milliards yokk ko ci daaw la loolu dix milliards déclenché plan Orsec loolu fan la toll fan lan lañ si def moo tax on avait dit que nañu def commission d'enquête parlementaire on a besoin de savoir pourquoi nit ñi am intérêt mbënn di am toutes les années ñuy def plan Orsec plan Orsec plan Orsec nga xam ne dépenses yi c'est des milliards te ñu wax fan lañu ko dugal on a l'impression qu'il y a une volonté de faire en sorte que mbënd bi bañ fi jógee parce que am na ñoo xamante ne ne plan Orsec yi daf leen arrangé lool loolu dafa laaj sanction mais balaa sanction dafa laaj ñu saytu ko assemblée nationale rôle bu mu war a jouer jouer wu ko commission d'enquête parlementaire la ñu waroon def pour que loolu ñu xam lan moo si nekk waaye mission d'information boo xamante ne ne rôle am lu tax ñu yëkkati ko pour informer député yi la waaye yéen ñëpp gis ngeen lu mu demee. dañoo yanu kayit ba yóbbul ko président de la république en violant le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs kañ la assemblée nationale di liggéeyal président de la république on est dans quel pays confusion de rôle parce que kërum dëkku paacoo la ñu nekk ki lay sédd moom ngay neexal ki lay sédd moom ngay def tout pour mu am satisfaction sa yoon nekkul si ay loi moo tax j'ai toujours dit que mbir mi du ay loi du ay règle du ay lenn mbir mi mbirum nit la nit ñi la un député il a la possibilité de faire son travail règlement intérieur may na ko ko constitution may na ko waaye suñ ko defaree ba mu yànj moom mu teg ko fële dem def lu ko neex pour ses orientations politiciennes je pense que tooñul boppam rek mais askan bi la tooñ moo tax gis ngeen yéen ñëpp déglu ngeen ko déclaration bu xalif général des Tidiane def sëñ mbay Sy Mansour ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér déclaration bu mu def jëmale ko si député ji mu wax yàggul lii am te lii ñoo mënoon nañ ko prévenir depuis parce que su amul épée de Damoclès si boppu nit ñi mu leer na la ne soo defee dara am na lu la siy fekk fii ak amul loolu nit ñi dinañ ko ne def lu leen neex su dee def nañ commission d'enquête parlementaire gis si loo xamante ne wute na ak lu amoon loolu dina dissuader ñiy def plus tard su dee of nag autosaisir na def enquête yu war loolu dina dissuader ñuy def plus tard waxuma nag le président Macky Sall la possibilité avec ses organes de contrôle def li si war mais amul volonté bi c'est ça la vérité